ñëw fii tey ànd ak suma naataango Ablaye Diop ministre de la culture pour lancer programme bi nga xam Sénégal Talent Campus te promoteurs yi nekk fii ñoo koy lancer ci wàllu formation ndaw ñi ma bëggoon rafetlu ko féliciter promoteurs yi parce que culture urbaine comme ni ñu ko waxee dafa bokk ci secteur yi nga xam ci euh, d'abord xale yu bëri ñu ngi ci yëngatu ci biir Sénégal mais euh, formation bi dafa desoon ñoom ñu jàpp ne kon war nañu jóg ànd ak ministère en charge de la formation pour former ndaw ñi ci ci ci métier yu melni son lumière ak yu démé non donc euh, ma la koy rafetlu bu baax ñun déjà na en tant que ministère en charge de la formation professionnelle nous nañ ak ñom ci bind programme de formation suivant l'approche par les compétences comme niñ donc euh, lolu dana tax tay ñu former ben corps bu ñetti téeméeri ndaw yo xamni war nañ leen former ci ci métier yi nga xamni mom moom lañ jàpp dans un premier temps. lool nak lu rafet la parce que culture urbaine culture de manière générale ñun Sénégal dañ ñon japp rek le secteur social waaye dafa nek secteur bo xamni secteur économique la mais secteur pourvoyeur d'emploi manam xalé yi mën na ci am liggéey mën na ci am aussi sen teraanga pour tok seen dëkk liguey fi comme niñ ko tuddee ñom jóg wadjal ëlëk alors da ngeen a wax ne yéen wa ministère de l'emploi da ngeen fas yéene ànd ci liggéey bi ana nan ngeen fas yéene nous avons ñun parce que programme est euh, pour que nous puissions l'approche par les compétences donc euh, direction pour l'ONFP, la direction de mener 3FPT la direction direction de la formation pour bind programme programme yi li ma leen que nous ma leen action donc nous ñu commencé l'inscription pour les donc nous programme mais parce que formation est gratuite pour que nous puissions faire cette formation à travers le levier pour président pour que mais nous avons aussi à travers l'ONFP pour que non seulement li ñuy commencé mais ñu à Sénégal parce que le Sénégal du Dakar nous avons Kolda culture urbaine aussi nous avons la même chance que nous. donc nous suñu métier la nous nañ leen

xam nga liggéey moom bu fekkee na nga yaakaar ñu embauché la di la fay salaire dafay xaw a ndaw donc lu ñuy yokk ci formation yi mooy xale yi bu ñu leen di jàngal métier dañ leen di jàngal nu ñuy saytoo seen yëfi bopp maanaam am seen yëfi bopp ba nga xam ni bu ëllëgee non seulement ñoom dinañ nekk ay employeur mais dinañ mën a employé yeneen xale donc loolu mooy li nga xam ni moo ci moo ci soppeeku ci ci ci tàggat waaw man maa ngi tudd Amadou Fall Ba man maay coordinateur général programme Sénégal Talent Campus nga xam ne benn centre de formation professionnelle et technique la lu ñu jagleel ci wàllum aada ak cosaan donc centre bi dina am ñetti bërëb yoo xam fa lay amee muy Guédiawaye Pikine ak Dakar

titre professionnel donc ñett yooyu la ñu am BTS bi certificat de spécialité ak titre professionnel donc boo xoolee aussi ñi ngi xalaat leneen yoo xamante ne dit euh, ñu ngi ñu doon wax ne ne ci parce que des métiers techniques moo ville de Dakar jël euh, am lu solo lu am solo lu mu def mooy jël corps de 25 femmes pour accompagner leen mais suñu classe yëpp day mixte amul classe boo xam 100 pour euh, homme la amul toutes nos classes vont être mixtes y a qu'une seule une seule classe BTS qui xam day am jigéen kese mais ñi des yëpp day mixte góor ak doon 25 mais nous xalam techniquement taux de dépréhension en cours de route on va faire de 1 2 3 4 5 déjà on l'a intégré pour qu'on on va finir à 15 ou à 20 parce que euh, juin 2021 Inch'Allah. parce que processus de des il faut ñu def pré yi il faut ñu def euh, enquête il faut que ñu def euh, li pré c'est-à-dire bi dina daw c'est fictif

loolu ba paré légui loolu nak formation moo ko jox parce que bo amul formation do am do am liguey bo amul liguey do am xaliss bo amul xaliss ci dëkk bi do am dignité donc ñent yoy il faut ñu bolé leen formation emploi dignité ak euh, loo suturloo ci lool moo ci taxaju wax defu ñu rek projet pour faire genre comme on dit non ñun on a bien réfléchi depuis 2018 ñing ci daw xam nañ baax fi jëm yalla nañu yalla sutura ñu ak ci ci jàmm ak salaam voilà def

il faut nga def ci ndànk te ñun demuñu ci benn prétention dañuy jéem rek suñu xel dal na mais dañuy jéem rek def ndànk bëgguñu ñëw rek ne waaw ñoo fi def lu kenn deful loolu moo wax dëgg yàlla ñoo jóg